yàlla seede na ne si vous continuez à connaître ces films la par cœur à connaître les acteurs de ces films par cœur dans dix ans di ngeen di dem di def casting pour nekk acteur parce que di ngeen raté seen vie te ñooñu ngeen di gis di leen ñee dund gi ñuy dund c'est faux amul man am naa ci xarit yoo xamante ni xam naa leen yenn saa yi man la ñuy yónnee message pour ma wari leen cinq francs des fois man lañ naan est-ce que bi pour ma tourner ko des fois ñu ci bari xam naa leen foofu ñoo xamante ni seen vie yàqu na ñii divorcé nañ ñii am nañ benn doom ba dem toog c'est ça que vous am doom joo xam du mooy papam wala am doom joo xamante ni après papam dafa leen fay bàyyi wala mu leen di dóor ci kanamam c'est ça que vous euh, mu baal ma nag man Pape Jibril vrai sama xarit la ñoo bokk télévision télévision Futurs Médias bañ ne mhm. mais kàddu googu dafa ñaaw. bu ñu waxantee dëgg. kàddu gi dafa ñaaw. ma gis ci commentaire yi euh, ñu ci bari dëggal wax jooju nga xamante ni moom lay wax. waaw euh, li tax ñu dëggal dama koy wax gis nga gis nga métier moo gis. Mm-hmm. métier moo mënti gis ci àdduna. dama ciblé rek théâtre kat yeeg acteurs yi mais métier mun ci mënti doon ci àdduna am na ñuy jubal am na ñuy jàddal. dëgg loolu ñu mën ñu bëgg koog ñu bañ koo ci bokk yam mm-hmm. ci biir aar bi. am na ñuy jubal am na ñuy jàddal xam nga loolu am na ñoo xam ni maanaam dañoo bëgg aar ci seen xol buñ ci amee def buñ ci amul dañuy def am na ñoo xam ne bii ne dañoo dugg ci aar ngir am tur buñ ci amee tur après dem defi leneen est-ce que dañ wax bi baax ñooñu bokkuñ ci ñun duñ ay artiste mm-hmm. parce que defuñuy formation xamuñu lan mooy aar mm-hmm. mënoo nekk artiste ba pare di def lu bon mënoo nekk artiste di wax lu bon dëgg la parce que dañ la koy yari su dégg wax bi ñam ñenn ñi nga xam ne nag par exemple dañ cee dugg ngir leneen ñooñu ñoom loo ñoom la concerné gis nga booy wax da ngay jël baaraam di ko teg da ngay ñeme li ngay wax Pape Djibril boo demee bay déglu la muy wax lii fii sama téléphone la mu wax dafa ëpp par exemple même bu fekkonte ne sax dëgg la mhm. même bu fekkonte ne maanaam dëgg la li muy wax maanaam mu war koo solol tubay rafetal ko nit day am sutura nit day am sutura nit boo noppee am sutura rek yow dootoo nit moom bu dee nee na am na ay acteurs yoo xam ne ay xaritam yoo xam dañ koy woo téléphone di ko ñaan cinq mille wala di ko ab yére wala di ko wala di ko àbb yére di dem di ko tourné ji ban artiste bu ñàkk fayda mooy dem ci Pape Djibril Fall di ko àbb yére pour tourné ji hmm. bu day na wax tur bu ñëwee li muy wax danaan diw bu dee xaritam la hmm. am na droit na jaar ci turam ne ne diw saa su dee tourné day ñëw àbb ma yére ñu xam ne diw moo nee lay waxal wala mu ne diw saa su banqué day àbbe damay woo téléphone ne ma pour ma pour ma wari ko cinq mille hmm. na ko wax te la ca gën ñaaw par exemple li mu teg ci kaw jigéenu acteurs yi actrices yi actrices yi ci kaw artiste yi la ko teg na sóoraale na am na rakk ju jigéen wala mag ju jigéen joo xam ne bii ne xamul fan lay mujj man sama soxnaa ngi nii actrice la ar ko Pikine la ne yàgg fa lool si ni nga bi bu kon am na lu bu ko waxee ñun daf muy laal ndax bu naan jigéen ñi damay génn ci télé bi boo wut ba bu nu siiwee sëy bu nu dugg benn doom lan fay am tas après nekk di dem na sax ba ni ñi nga xamante ni am nañ am ay doom xamuñu ku jur am nañ am nañ très bien am am nañ ay jigéen ñoo xam ne am nañ ci ay doom te xam xamuñu seen papay doom mm-hmm. déggul ma wax mii lii jullit war naa tiim moroomu jullitam di ko wax ci ay jigéen ñoo xam ne jigéenu réew mi lañu ay jigéen ñu am jom war naa wax loolu mm-hmm. te fam ko waxee la waaw parce que te fi mu ko waxee moo tax foog ñun ñu waxee ñu nit ñu waxee ko fii tontoo ko fii. Euh, parce que fa mu ko doon waxee ci salle de classe la boo xamante ni ay xale fa nekkoon euh, te euh, man père li ma jaaxal. Mhm. milieu bi ñi ci nekk ñëpp ku ci nekk yor na sa métier bopp. barki yeneen tibi déggoo li ma la wax aar danoo teral. billee barke yonent yàlla Muhammad barke Cheikh Ahmad Cheikh Sadbu tawal ñun amuñu ñun métier mu dul aar moom la ñu am moom la ñu xam te namuñ ci dara pour moom mu xam loolu xale yooyu muy wax naan leen ñun danoo raté suñu vie loolu wa loolu loolu la nit di tiimee ay xale di waxtaan ak ñoom naan leen ay maanaam bu ngeen bu ngeen demee ba bëgg a def ay casting ak yooyu mooy d'ici dix ans yéen jàpp leen ne vous avez raté votre vie mooy kon maanaam ñun danoo raté suñu vie <laughs> ku raté vie am yàlla na mel na ñun ci yàlla Muhammad amul moom Pape Jibril laay waxal mu dégg ko amul lu mu koy ñeewe amul lu amul or que ñun mën dem fu ñu demul barke Cheikh na Cheikh Sadbu rawal ñun fa dem moom dafa dem mm-hmm. dañoo wër àdduna ñëw toog est-ce que wax bi mm-hmm. wax day rafet moom danoo yet xamal tax mu yet nu yow ci bi école nga dem fekk ay élève ci classe yow doo waxtaan ci wàllum njàng mu suuxe ni doo xelal élèves yooyu par exemple nan la ñuy def ba réussir ci seen jàng doo wax ba doo expliquer ñoom ba ñoom ñu mën a am ak jàmm professeurs yi ak enseignants yi ba grève dootul am mm-hmm. doo wax ak ministère de l'éducation doo wax ak parents d'élèves yi waaye dugg ba ci biir classe ay élèves ne fa nga nekk fa jël maanaam acteurs yeeg artistes yi di yàq seen der ci biir élèves yi pour lan pour wut buzz wala pour pour wut loo wax booy wax ba xamatoo la ngay wax danga naan pat noppi ay wolof la wax te ñun mën nañ koy jàngal wolof di daw di ko wër mhm. la mu wax yépp dañ koo décortiquer xam ko mhm. même Serigne Ngagne bi ma ko woowee tey suba naqarlu na affaire bi déggoo dama ni la woon a naar ci guuxum soow man maa ne man per bu xar Pape Djibril Fall ne mérite même pas d'être député à l'Assemblée nationale parce que boo sous-estimer les acteurs sous-estimer les artistes comédiens traiter leen de n'importe quel nom yow tu mérites même pas d'avoir par exemple benn kàddu sax ci am réew ñun ñooy réew mi ñun ñooy réew mi la ko dalee ca président de la république ba ci ministre yi ku ci xewle bëgg mu neex ñun ngay woo ñun ñoo leen di bégal bu nu mënatul a ñaanal mënatul noo sant bu nu xas Pape Djibril danoo xas daa xas kuy acteur xas kuy actrice moom daa traité jigéen ñi ci acteurs yi actrices yi ak artistes yi moom da leen a traité de caga ndax li mu wax loolu la mhm. ñun góor ñi mu traité nu de vaurien maanaam ñun ay nit ñu tekkiwul dara la amuñu dara amuñu dara dañuy ñaan dañuy ñaanaatu amul lu yu nu sol loolu la Pape Djibril wax mhm. mu ñaaw nag ndax nag ma ko doon man dama ko doon xoolee feneen ndeysaan man bu daan gis jëmm ji mhm. dama daan ndeysaan nit ku baax ñi ku rafeti kàddu ku xam li wax ndekete booba man trompé naa xaw nit ki ndekete Pape Djibril xamul dara li wax dafa ñaaw man ku wax dal ci kaw artist comédien yi acteurs yi non man dafa lay tontu waxal Sénégal nan fi wax lu ne nan dugg fu ne wax lu ne su ma man concerné wu ma mais biir aar bi may dund man ku ci dugguma wax ak yow moo xam ne bokk fa nii liggéey ñu bañ koo bokk ci yam est-ce que est-ce que tamit jotul euh, ñu amaat beneen taxawaay. Mhm. boo xamante ni ñun acteurs yi wala ñun artistes yi dañu war a booloo doon benn say di yëkkateendoo di dóorandoo parce que euh, lu ñuy traité de tous les noms d'oiseaux dafa dafa bari te dafa metti ci suñu suñu biir xol. c'est parce que ñun ñoo ñàkk fayda d'une côté mhm. ñun ñoo manqué ñun ñoo ñàkk fayda ba ku jug